حب شيقي yëpp di kontaan ci kontaan kontaan ci teewaay bi di ñaan yàlla ñu teew ko fi ay déwén yu bëree bëri yal na yàlla defal wér defal fan wu gudd nga fi ñëw dañu fi fekk ñu koy tal nga koy tal Eh, am na ay points yu ñu waxoon ne nag bëggoon nañ tey waxtaan wi siyaare bi doxee ko donte temps amul waaye ak lu mu gàtt gàtt rek mooy ne eh, ci alfu salaati bu eh, góor gi ñàng la laalal ñu ci ak it mbiru salaatul aarifina comme ni ko bàyyi waxee. Euh, maa ngi leen di fay waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu euh, ànd ak maanaam na ma ko daan yéegee at mu jot. na ma ko daan yégee at mu jot noonu laay noonu laa ko yégee ba tey maanaam kontaan ci dajeeg ñoo xam ne wóor na ma ne euh, daje bi itteel na leen hmm? waa xam nga nag bayti yooyu dawa li may njëkk def mooy corriger euh, sopp yëpp dañoo foog ne bàyyee ko déedéet bàyyi waxu ko ndax mi ngi ci jawaarul maani Seydi Ali Harazim laaj ko Seydina Cheikh mu di ko ci jox ay tontu waaw ah, xam nga mm, salaatul aarifiina sax du benn du benn du benn du benn couleur aarifiina yi dañoo bari waaye yépp dana daje ci julli goo xam ne borom dana ko julli fekk yàlla rek a tax tattaxar bi maa il xëy bi maa u bee ñuy jàppee ñun muy maa ul mutlaq nga xam ne boo nee maa u rek moom la fuqaaw yi wax waaw loolu moo mooy maa ul mutlaq mooy ndox mu laab ku ko jàppee fiqhiyan euh, laab nga mais aarifine yi euh, ñoom doyloowuñ laab googu ci liñ sukkandiku mooy base waaye nag maa ul xayb bi xam nga maa ula ak xaybu kon ndox la moo xam ni ni ni ndox mi nekkee maa u shahadati nga janoog moom di ko làmb kële maa ul xëy bi xam nga doo janoog moom da nga koy xam mooy euh, maanaam euh, yow booy jàpp wala ngay set seteel maa ul xëy bi su fekkee ne yow am nga cër ci mbóotam aarifine soo ko mënul nag tiimal comme ku amul ndox ku amul ndox fii ni ngay tiime mooy saidu pàkk suuf këpp walla saxru maanaam lu dëgër ba ci doju tiimukaay mooy zahir bi fari itam am na lu tolloog moom soo eggut ci maqaam itam am nga lu mun a tolloog loolu bon waqadim imaaman kunta anta imaamahu dinaa ñëw ci bayti woowu waqadim imaaman kunta anta imaamahu te nag nga jiital nag kuy julli da nga jiital sa imaam léegi ne yow am nga imaam boo xam ne yow yow danga nga koo jiitu woon te moo la war a jiitu jiital ko nag kunta anta imaamahu wala kunta anta amaamahu lu ci nekk mën nga ko wax imaam daal moom du fare gannaaw te yow sa imaam danga koo fare woon kanam waaw wa salli salaatal fajri fii awalil asri ba salli salaatal fajri xam nañ ko bu dee juróomi julli yi waaye bu dee juróomi julli yi nag wax dëgg yàlla fajar mooy jiitu tàkkusaan moo jur takkusaan asru bu dee takkusaan nga ko firee kon mi ngi mel ni euh, kon mbir mi am na koona koona ci biir ndaxte euh, salaatul fajri moo jiitu salaatu zuhri sax saka salaatul asri mu ne nag fii awal bu bu takkusaan di jot rek yow jullil julli fajar ñu xam ne kon waxul julli juróomi julli yi tegaloo waaw bon boo ñëwee ci maaul xëy bi xam nga cosaan même ci discours zahir يقول لنا كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينجسانه أو يمجسانه أو ينصرانه كجود رك يعني فطرة الإسلام بني لباون رك كتام تي الإسلام غير موجود كونك مسيحي ولا يهودي سي بوكلا تي بوس أبواه وقل يدخلاني في الإسلام لأخير جدو فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم la ñu bëri xamuñ ko kon nag boobu déjà rek nit ki laaboon na lu ko laabaloon ndox moomu gisuñ ko mooy maawul fitrati maawu maawu rahmati et te itam lu ko gën a xóot yàlla wax na loo xam ne zahir la ci alquran mooy yàlla nee na am na mës naa mës naa teewal nit ñi ci teewal bi ne ci alamu zarri zarru kat mooy bu njëkk ci fir bi euh, sànqaleñ booba mais nag léegi bi science am na lu ko gën a tuuti fuuf mooy atom te yëpp zarru lañ ko tuddee teewal lépp lum naayoo bind jëlla mu am formu atome mu mën leen a déggloo mën leen a waxloo ne leen alastu bi rabbikum tontuloo ñépp ku naayu tawxid ne bala mu ne an taqulu yowma alqiyamati inna kunna an hada pour dog lay wi kon nag buy weddi buy xijaab buy réere yàlla yépp gannaaw gi la sosu waaye ci bayatu booba ñépp wax nañ yàlla bala shahid na shuhud shahada mushahada waaw ah, yàlla nag gannaaw gi nag liggéeyu yonent yëpp ak duwaatu ilallah yeeg awliyaawu yeeg mooy fàttali nit ñi ahdu boobu ahdu alastu bi rabbikum boobu mooy maawul xay bi soo mu nee delloo sa bopp ca laab ak cosaan ga ca xam ak cosaan nga ca xam dafa la koy wax pour nga dox jëm ca ci ron baay ci laa xamee ne tëkku sax bu yàlla tëkkoo ñàng ak tëkku ga bu mu tax nga foog ne fuuti nga la ci biir mooy daf la ko yëgal ngir nga fexe ba du la dal kon avertissement bu dëgg la boo ko tëgg bukki baa ngi ñëw fekk bukki nag fi déedéet liñ lay liñ lay tëkkoo dëgg la waaye nag may nañ la force pour doo ci yegg ndax boo ko xamutoon da benn philosophe nee na oh man daal dafa ragal dee ba bu bu yëgoon yàlla daf koy bind rek fekk du xam ne dee am na ba buy xëy rek dee <laughs> xam nga waaye ku xamutoon ne lu bon am na wala lu jafe am na wala jafe am na kon doo ko bàyyi xëy totoxet bi mayil xëy bi comme na nga déparé woon fexeel ba dellu ca in kunta daa sirri moo sirru luy sirru xam nga ñun bë sirru sirru sirru sirru mooy safaanu jaxru rek jaxru mooy ci ci kaw mooy lu bit sirru mooy lu nëbbu waaye du ne lu nëbbu rekk duñ ko xam benn waaye neena man sama bopp laa xamee ne sirru am na ma ne ko noo ko xamee mu ne gis naa nit ñoo xam ne ma leen bëggee ngir yàlla su ma leen ko waxoon duñ ko gëm ma faf noppi rek ndax lu nit egg foofu dafa jafe <laughs> dégg li ma nga mu ne moo tax mu far mu mel ni ñëpp rek ci ñoom waaye waaye bu bu xamoo ne bu leen ko waxee ñu gëm ko dina leen ko wax eh, kon nag maanaam dellu cosaan dellu cosaan loolu la sit na cheikh itam di jàngale mais bayt wi kenn ci gaañee ko wax ñun nag léegi laa ko bugg a wax ndax ñëpp déggandoo ko lu bëri ci béyti samaaw yi buñ bu leen foog ne pay bee ko ràbb léegi samaaw moom dafa yàgg ci eh, ngiram sufiyanke yoonu sufiyanke yi eh, ni woykatu àddina di jëlee aw woy di ko way muy neex nit yi àddina ak sax koo xam ne buñ ko bu fekkee du luñ aaye nga kontaan ca noonu lañuy jële wax joo xam ne ki ko wax sax xëy na jublu ci woon lu jëm ci diine secret yalla mais nak ñom manama dañ ko jombale luddul yalla ak ñi ko sopp yenn mbeug yi yenn jeex yi yenn lam ma jaral su euh, suma su ma bay bu gade ñu talal ma ndox mu ne ma bul naan koy duma naan xam nga amna ko way lool hmm. euh, ñu ne de lool yalla ko mom kii ñu ne kii ne dañ maa laaj ndaw si ma jeex ci moom ndax gis nga ku ko dàq mu ne ma ne leen dàqante xanaa dafa soxla keneen ne feeg moom moom rekk fi ne di alors moom mu moom muy tagg ndawam si wane rek ne doo gis ku rafetee ni moom su fi anki ñoom dégg na ankañ moom rek fi nekk moo moo tax ci kaasi wooy woo xam naa koo xam ne sax daanaka fat xom foofu la jaar waaw nag kon nag euh, am na ci nag waaye yoo xam ne woy bàyyi ñu jël ko samaawu ko am yoo xam ne woy yi ibnu farid moo ci gën a siiw ndax moom dañ ko daan làq bale sultaanul aashiqina boo déggee eh, safaun wala maun wa lutfun bila wala hawan wa nuurun wala jismu ibnu farid la waaw farid moom moo def boo xam ne xam moom musul gis sax fu ñu jaayee sàngara saka di ko kii waaye nag moom lii dal nit bu bëggee yàlla dëgg daf ko niraleeg mandi daf ko niraleeg mandi moo tax muy wax affaire xamr waaye waaye nag xam nga bam ne bam ne ta bam ne taqaddama kullal kaayinaati xadiisuha lii lii bees tey ci sàngara soosu moo jiitu mboolem kaayinaat yi ñoo xam ne kon waxul sàngara ndax sàngara moom ci ci raisin rek la jógee ah, te mu ne sàngaraam si wala karmun raisin nekku fa te pourtant am na wax na ndax sax sàngara bi sax Ibnu Farid nee na maanaam eh, hani an li ahli dayri kam sakiru miin wa ma sharibu minha walakinnahum hammu mu ne mi ngi mi ngi ndokkeel gaay ñi ñi nekkoon booba ci benn benn benn benn benn couvent ne mi ngi leen di ndokkeel ndax sàngara si muy junj moom bañ ko jubee rek lañ màndi jotuñ caa naan sax te sàngara nag lu mu for for rek boo ko naanut doo màndi nag waaw kon ay ay junju la pour ñoom de rek maa ngi jàng bi ci Cachou Bas bàyyi di wax ci affaire ru'yatu di wax ne nit day weddi lu mu waaye ay nit bu ñuy waxee ay mustalahaat yoo xamul nga di ko weddi yow bu dégg nit ñu naan fayal ak faayil ak mubtada xabar yow nga foog ne eh, la nga la ci xamoon ci luxa la fekk ñoom waxuñ loolu moo tax ñiy werante ñun li ñuy wax ak li ñuy wax ñun bokkut li ci bàyyi mujj wax nag ci lu ma xam te noon na lu mujj ci jëfi kaamil mooy la ci gën a mat ñu bàyyi ko xel axiru axwaali kaamil yi ak maluwa daf ko ne xàññ wax ko ci digg ba waaye ba tey gaa yi duñ dégg waaw mi ngi ci benn diwaan mi ngi wax naan wa laysa yural qudduusu bil ayni laysa ayni innama bi ayni ama wa saxqi wal maxqi wa tamsi kon kay gis gis amatu fa na quddus zatuwaal yi kenn du ko gis ak bët yaa ngi koy gisee kay bëtab sëlmaxa bëtab mokk rupp bëtab nemm ak bëtab far xam nga loolu moo <laughs> kon suñu wax bokkut ak sëlmaxa waaw moo tax bi ñuy xëcc ci ñuy werante ci gis ak ñàkk a gis ñu ngi ñuy indi ci débat boo xam ne du suñu bos xam nga ku wax ne kii gis mokk nag sunguf la nekk xam nga da yàlla bu bu yax yi mokkee kay ba bopp bi bët yi àndaale ci loolu mooy mooy junj li ñuy wax fanaaw kenn mënu ko sas euh, kenn mënu koo discoural nit nag moo tax moo tax tatahar bi maay xay bi in kunta za sirri way la tuyamam su fekkee ne eggagoo ci mbët itam mët mët lul mët mët lul mooy nga ànd ak ñi mët waaw mu ne da dem ci ku pare ci yar boppam nu mu la wax ne noonu la nga ànd ci ak moom fekk ba ngay yeggee fa fa la tax ku amul ndox da ngay tiim ku amul mat dangay ngay uti ku mat wa qaddim ah wa qaddim yow fi mel ni char charullahi lim la ay yëpp bu fekkee ne yaa ngi ko teg ci gannaaw yow di def li nga bëgg xam nga yow sa sa ilimaan sa gannaaw la nekk mhm. ba yow nit ni nga foore yàlla tuddee la xalifatullahi man parce que aadama inni jaayilun laa di xalifatal su fekkee ne dem nga ba ba niru ba niru kund ci uruj niru lëg ci naxe ah dégg nga niru seytaan ci ci ci ci yu bëri xam nga mi ngi mel ni yow yow yow yow ki nga war a topp léegi yow moo la topp léegi bakkan bi lu mu la sant nga def ko bu nekkee am maara bi da war a fexe ba ñu dimbali la ci ba not ko Maam Rajab Laay ki ko doon bind ci taarixam bi nee na Maam dafa xeex bakkanam bi di ko xeex ba bakkan bi mujj ñëw faf nangu lim mu koy li koy wax ànd ak moom di topp yàlla waaw nag nag sa élimaan dafa laa dafa laa war a jiite warta nekk ci sa gannaaw sa dalil sa gidd bi lay won yoon wi bu nekk ci sa gannaaw déggutoo li muy wax te moom war a waroon pax yeeg gaynde yeeg lëg yeeg bukki loolu loolu la maanaam maanaam li yëkkul la ka imaamun li yëkkun la ka xudwatun li yëkkun la ka man yasluku bi ka ilallaay su boobaa sa imaan la jiite dangeen gis nag ci woy yi benn bayti boo xam ne suñ ko firiwut dina indi ca caxaw caxaw waaye dafa nekk ci masjidu rasulillahi di tagg yonentu atam man maa ngi ca Pakistan mu yónni ma moo ko El Hadj Abdoulaye ànd mu ne usalli amaami alxaqu jalla jalaaluhu wa imaami waaw may julli fekk yàllaa ci suma kanam soo ko dégg mu naan yàllaa ngi ci fi mu suma ilimaan ji nag nekk suma gannaaw Moustapha bi isa yi suma wet waaye ne ma xam nga baytu wi lan ma dama dama doon ziyaara ñu ñu liqaam ba taxaw fi ma nekk di juli jublu xibla darix bi nekk sama gannaaw loolu rek lay lay lay caxe xam buñ la ko firilut voilà way bàyyi am na tuuti ay asbaabu nuzul war nañ koy xam uqaddim imaman kuntu anta imam wa salli salaata alfajri fajru inchiqaaqi al arwaaxi booba mu doon junj ci alamu zarri kenn bañut kenn réerul kenn amul xijaab julli ko salaatul fajri fajrul arwaax fajrul shiqaaqil arwaax fii awali asri maanaam fii awali asri wujud asru mooy jamono ba jamono yi commencé ba yàlla lay bind ba muy tëjal lii di feeñu zarru yi booba maanaam maanaam fexeel ba dellu foofa fexeel ba bul amati xijaab loolu la bay si cheikh bi wax na ci lu bari waaye mën nga koo tënkee noonu parce que bi may korti korti ci bay bayt yooyu nii ko cheikh firi boobu aw ma ñaar fukki at fa haadi salaatul aarifina bi rabbihim ah gaa ñi xam yàlla ci martabatu rububiyat ñoom suñuy julli luñ yëngatu yëngatu luñ jàpp-jàpp luñ luñ def it xamal ne ña ngay dem gis nga par exemple tey am na aarif boo xam ne maanaam maanaam maanaam bu bu buy buy julli julli gii nga xam ne moo la war a nag ci jokk woogu yi tuddee julli te julli gi du fi jóg mukk mukk mukk moo tax yonent mu jëddeenkaa ne assalaate wa ma malakat ay maanukum ak julli gii gii ku zaay gii moo tax zaay rek baatim duñ tàggoo mukk waaw euh, am na kenn ci fuqaa yu mag yi nee na nee na diw musuma koo gis muy geesu ci julli xam nga ñu bëri ci ñun egg nañ ci marsa boobu mais mag geesu gi mu wax mooy maanaam shuhudam du ko ñàkk mukk am na koo xam ne dafa sujjóot jumaa ji am lu ci daanu ba nit ñi jóge fa la ñëw moom fa mu nekk jógu fa mu ngi ci benn côté bi daanu wut mu naan lan la waaye loolu yàgg na de mais Serigne Dame Niang rahimahullahu après jës boobu ku tàng nga xam nga dox na fi Kaolack ba Dakar ak tànkam <laughs> mais mus naa sujjóot ci pegg suñ daara ji ci woon ci biir kër baay xale bi ñuy wéet ci garaaw gee xamuñoon ne lii lu ñuul lii nit la dara la ñu ñii wér fii ñuy wér ci koom kii mu continue suñu ba mu jógee allo yëpp de karang karang karang daal hmm, su fekkee ne ci ñoom nga bokk fexeel ba fandaxil barra bil baxri maanaam tànqal ci géej gi wisee ko jéeri ji ndax pënd bi wàññeeku hmm. niru niru gaa yi moo tax ñu lay samaawul sa xol du dellu yu lay sikkaral ngay fàttaliku yu lay jiite ngay roy yu lay muñal parce que euh, nekk yegg koo fi nga war a yegg lii lii la en général ak ah. maa ngi fàttaliku ne ci benn ziyaare Tayba ñangeen mës nañ ma sant ne naa firi alfu salaat yi ba mu jeex celeet defoon naa ko parce que ni ngeen di def yéen ñi yombut maanaam lu lu ngeen def ku ko fekke wut mu yegg ci loxoom loolu yar na sax firi woon naa ko mais kii ci la bokk abdul ilahi xalilullahi habibullahi almaktumu saani anta almurabbi liman yulabbi nidaa xaqin bila damaani la bindaa wala tawaani bila ضماني بلا ضمان لبير بلا تواني ديلا خمون واي باتين والف صلاة ما دفو دي روسا اك مانم كاركتيرو بلاج بابدو دل يعني أمد لربي على لقاه أوفر هازم من ذل والي عبد الإله جامي الله بي xam nga ñëpp jaamu yàlla lañ waaye bàyyi dafa ne ibaadatu am na ubudiyatu am na ubudatu am na ñi ñooy am ñi ñooy xaas ñi ñooy xaasi xaas moo tax mu ne arju wa amuru taxqiq al ubudati lii bil mustafa muntaqa yaa raxul ak mu mat mu matalal ma dëggalal ma sama ubudatu gi maanaam martabatu xaasal xaas bi ma may mu mu dëggal ko maam El Hadj Abdoulaye gis naa lettre mu bind sëñ Touba naan ko lettre baa ngi jógee ci ki nga xam ne yaakaaru lu mooy turam bi dëggu ci moom Abdoulaye <laughs> xalilullaay xaritu yàlla nga yonte Ibrahima lañ tuddoon xalilullaay bu la nit ne ah nga ne ko waa turandawu xalilullahi la jàmm ni ñooy waaw mais yàlla mun naa def nit xal xarit maanaam xarit mooy jegeel rek yàlla xarut sox bay am xarit mais fi nga koy fàttalikoo mooy bàyyi ca Conakry wala ci wetu Conakry ba mu waxee ci ay may yu ko yàlla may boole na ci ne قد خصني بالعلم والتصريف إن قلت كن يكن بلا تسويف بام واخي فيم جار فيم جار فيم جار من يالا ماي نكو خصوصيه مو ام علم ام تصريف تصريف تصرف موي مقام بي خمي سيدنا الشيخ نانا كوتي ايغ سي طالبي جامونوم بول دك فاس اك موم تبارك تيو موتاخون علي حرازي ني jëmoon màkk te moo taxoon ñu ne comme ni ñu ko waxee ba bi ci bi Mouhamad Mouhamad Ibnul Mishri am na sax yu xewoon waaye sirru ba dëgg-dëgg mooy moo taxoon mu mu départ même mu faddal saqaat yam jaaroon yëpp moo tax bàyyi nag ne yàlla may na ma ilmu ak tasrif ilmu fàttalikul ilmu ba Suleymaan ne ku may indil gàngunaay Balqiis ki mu ne ifritun min al jinni ak kattanam ne mun naa ko indi balaa jotaay bee jeex de maanaam daal ci une heure de temps xëy na ba deux heures de temps mooy ni ko ko xeeb lu mu ca teg qaala alladi indahu ilmun min al kitab ana atika bi qabla an yartadda ilayka tarfuk mu xool rek gis gàngunaay waaw ilmu boobu bokkut ak ilmu bu bu baax bi ngay jàngee nooy jàppee ilmu la lii ilmu la lii ilmu la bil ilmi wa tasrifi ne in su ma bëggoon a nekkal dara day nekk te du doon solu naan ca kanam xaw bi dafa meublé ak yu bare yu ma fekkewut ak yu ma fekkee te ko ak nag yu ma mais nag am na loo xam ne yow doo xam loo koy firi par exemple am na wax naa ko gaay bi am na koo xam ne dafa feebar ci ci ab dëkk ci gan ci wàllaa dex ndax yàlla ko natoo bëri tension mënut a saw mag la sax waaye bi muy dugg nag bàyyi dafa doon yuuxu bàyyi du ko yóbbu dispensaire xanaa indi ko fii mais taxul mu dàq leen noonu noonu nag bàyyi ngi añ ba ñuy xeli attaaya xam nga bàyyi ki koy attaayal ci bunt lalam bi lay toog fourneau bi nekk ci ci ci ci perron bi alors euh, bàyyi da bàyyi jël ñaari kaas sotti leen ci benn ñu jox leen ko ñu jox ko waa ji naan saw fi mu toog loolu moom façon la ci kun fekkoon maanaam am am lijaaba ba egg ci tëkk wi bëri na lu muy am waaw waaye nag mu def caa teg ne laakin na ni taxistuhu wakiila te adduban ma mayee tasrif ilm ak tasrif to taxul ma tasrif dama ko ne rek yow ci yow laa wakkirlu ngir ngir am teggiin mu ne faxtaara ni xalila mu mu mu jegeel ma xalil day jege xaritam parce que xullatu jaxasoo lay firi yàlla jaxasoo la kenn waaye xam ne yàlla rek la kooku itam ci la xullatu commencé wala ci la yem moo ne ko nag euh, abdulilahi xalilullahi xabibullahi hmm, mooy xabibullahi aslan mais képp ku bëgg yàlla ba yàlla bëgg la xabibullahi nit dana ci xaal xaal ba day toxu li dara kam ci maqaama du toxu waaw bàyyi am na xadis ju muy rewaayal ci ab téerim ne man ahaba liqaa allahi ahaba allahu liqaahu liqaa allahi ku bëgg a daje yàlla yàlla bëgg a daje yow loolu moo tax yi euh, ne moom ni mu déggee muj gu rafet mooy ko xam ne ba muy faatu amul dara lu ko gënal lu muy bàyyi gannaaw ba mu di ko geesu mu ne mujj gu aw gi ñuy muslu mooy ku na yàlla di kër këree ay yëf jamono jot rek mu yëg ne mi ngi leen bàyyi ko fi daf koy rëccu di ko geesu mu ne xijaab geesu googu moom lay demee abadal abidin waaw kallaa innahum an rabbihim yawma izin la mahjuubuun moo tax mujj gu rafet du du du affaire lu métteeg yooyu lu mooy mooy dem ci yàlla fekk bëgg ngaa dajeeg moom yàlla bëgg a dajeeg yow حبيب الله المكتوم ثاني بو فقي يعني مكتوم الاول موي سيدي ابو عباس احمد التجاني كي مونا نيك مكتوم ثاني تخدف كو اوتو منا مكاتيم واي موم كي مكتوم لا فكي ما ولا جي مكتوم لا كين خمو ني لي ياغي وون تي بيرم ميغي ني مكتوم ثاني المكتوم ثاني انت المربي امول ورنتي yow yaay aji yar ji ndax yar nga ñi yare yar am na ci jàngale yar am na ci ruux ñaar yëpp la yu noon ko noon ko huwa cheikhu bi jamii maratibihi mooy cheikhu taalimi ak cheikhu tarbiyati ak cheikhu tarqiyati kon nag antal murabbi tarbiyo kenn tarbiyo ñeen ñu bari nga tarbi waaye dina tarbiye ci jàngale dina tarbiye ci jikko dina tarbiye ci xaal dina tarbiye ci ci waaye nee na nit ba mu am fatxu cheikh ko moom ci tariqa bi koo ko neex nag la koy jaarale li man yu la bii nag waxtu yàlla lu taabal ji fees fees ak ay lekk boo ootee te aayoo kenn ki ñëwul nag wax bokk ci yow antal mu rabbi li man yu la bii man lam yu lab bi nag kenn mënu ci dara ni daa a xaqin yàlla woote na wooteeg dëgg ku uyu yaa koy ram bi laa damaan ji nag laa la xamut waaw ah, mën naa mën naa léegi daf koy seet ci nu socc saani waaw bu bu ñu bu ñu bu ñu kii xam nga basir dafa bari ay ay façon bii ci façon yi la mu xaw ma mu mu jëza xaw ma waa mu mu xallaa waaw moom lay doon hmm. xam nga xam nga ci woy wi am na ci boo xam ne moom dafay wax bàyyi ca fin mu ne ko antal munaadi anal mulabbi bay ba ci bit bi ci tegu nag moo jafee firi bal anta naadi sumal munaadi bal anta naadi sumal munaadi xam nga naadi bu njëkk ba bu duut aji woote bal anta naadi sumal mulabbi bal anta naadi yow yow yaay penc mi ñuy ooy nit ñi sumal mulabbi topp yaay ki uyu itam parce que yaa ko fi indi waaw mu ne ko nag ca fin ba nag anaxtu raxli janaaba cheikhi anaxtu raxli janaaba cheikhi maa nag suma gëléem nag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 محمد رسول الله عليه وشد على الكفر كن لنا في سائر الحالات يا ربنا بذات وصفات فكن لنا في سائر الحالات وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه அதிகார அவகாசிவாய